buñ tourné gis leen donc li may njëkk def mooy gërëm presse bi sant leen si ni ngeen taxawee ci la lutte démocratique pour le Sénégal tey nag dama woote une déclaration importante mais balaa may dugg ci déclaration bi li may njëkk a def mooy remercier de vive voix le président Bougane Gueye gërëm ko sant ko parce que ay moment difficile ànd nañ liggéey liggéey bu am solo xeexal sunu réew xeexal laa démocratie gërëm waa gëm sa bopp yëpp sant leen équipe yëpp maa ngi leen di gërëm parce que liggéey nañ aussi avec des moments difficiles liggéey nañ pour sunu réew li may tàmbalee nag mooy ànd boo gis rek dafa am fu muy yem mais nag bu fa yem aussi na rafet man loolu laa gëm parce que ñun ñooy nekkaat si sunu guerre Sénégal war fi dund décision bi ma jël dafa doon décision boo xam ne su may kilifa parce que wax na ko moom mooy coordinateur mouvement bu am doole bi nga xam ne yor nañ ko ay ati at di def social bu doy waar ci parcelle commune yi ñu wër ax ci ci biir réew mi Europe di ngeen dégg toutaleur à l'heure par u coordinateur Finlande coordinateur Italie ñoom ñëpp dinañ dugg wax kilifa yëpp taxaw nañ jël décision ma porté ko parce que man maay président mouvement bi décision bi du dara lu dul mooy à partir d'aujourd'hui Gueye l'original quitté na mouvement gëm sa bopp à partir d'aujourd'hui Gueye l'original se décharge de toutes ses fonctions du mouvement gëm sa bopp parce que nag yaakaar naa ne xeexu suñu réew bi ñëpp gis nañ ci taxawaay bi ma bokk comité exécutif bu F24 toogal fa gëm sa bopp di liggéey liggéey bu metti nekk le président de la commission organisation mobilisation massification et implantation F24 ci réew mi yëpp jóge fa front bi bu mu amee front pour la défence ma nekkaat même fonction yi di organiser toutes ces manifestations dans ce pays ñëpp gis nañ ne tey xeex bi ñu doon xeex métti woon na ba boo doon dem plateau sax say mbokk say waajur dañ naan la li ngay wax xool et cetera ba ñëpp ragaloon nañ ne soo génnee sax ñu jàpp la mais teewul lépp dañ ko bravé xeex yaakaar naa nag soo nekkee njiit bu décision jotee quand le peuple appelle après avoir combatu farouchement ce régime, il faut prendre la décision attendue par tous les Sénégalais. Quand le peuple appelle, il faut assumer ses responsabilités. te je crois que loolu moo indi coow li ba nga xam ne fa ma nekkoon parce que man dëgg rek dëgg rek bu dëgg weesoo nag ku nekk delluwaat ca la nga nekk kon jàpp nañ ne Gueye l'original delluwaat na ca mouvement ma fa jógee parce que gis ngeen ne lépp ñoo naa continuer nos actions mais insérer ko ci programme yi gëm sa bopp nous on va continuer nos actions ci lu gaaw di ngeen gis ay actions sociales yu du déroulé ci commune yi chaque année ñu def ko muy consultation ophtalmologique yi avec plusieurs consultations avec Paris vers yoo xam ne jóge na ba pare on va le faire encore et continuer le travail à travers le pays et à travers les parcelles et les communes environnantes maa ngi leen di gërëm di leen sant ma bantu ko ci nasaraan waaw ñu ma koy signalé ma dolli ko ci rek parce que génération originale la woon mais léegi dafay nekk génération originale et citoyenne muy gos parce que li ñu liggéey ci biir réew mi dañ fas yéene capitaliser ko dafay nekk génération originale et citoyenne parce que ñëpp xam nañ ne ci génération original ñii ñu nga bitim réew ci diaspora fi am fa doole te ñoom ñëpp yàgg nañu taxaw di liggéeyal seen réew loolu laa bëggoon préciser di gërëm waa génération originale parce que nag lu mu metti metti dañuy taxaw te yàgg nañu xam nga loo def 12 ans di ko liggéey xàddiwuñu gore lool sant leen gërëm leen du ay post moo ñu yëkkati parce que bu doon loolu fa ma nekkoon di Benno Bokk Yaakaar def fa dix ans am un bilan boo xam ne muy le ministre Amadou Ba amul un dixième moom muy maire bi fi nekk jóge fi avec les budgets amul un dixième moom nga xam ne kooku li ko yitteel mooy jàppale askanam parce que nag li ma dugal ci politique masuma politique ma waxaat ko suma waajur bu jigéen moo gis koñ bu xumbu lool ci wàllu politique ma liggéey wàcc xare suma mat ñëw tëdd mu ne ma Momadou jógal nga dugg ci politique ngir dimbali ñi nga dëkkal jógal nga dugg ci politique ngir dimbali sa communauté parce que man nga ko donc nag sama forme politique du bokk ñeneen ñi loolu baax na ñu préciser ko maa ngi leen di gërëm di leen sant